waaw Maguette. waaw papa. Euh, man maa leen wóolu woon. rafetlu seen jotaay bi. Hmm. ginnaaw yàlla suñu borom def na li muy def. ginnaaw lii am am na ba pare. parce que rakk yi ñu ci kër gi. Hmm. li ma bëggoon mooy waxtaan ak yow te dénk la sa rakk yi. nii nag dama bëgg nga uuf leen. teg leen loxo te jaaral leen yoon hmm. li ñu fekk si kër gi muy seeni mag ak seeni rek ñu jàppante ànd ak ñoom ñi nga xam ne seeni soxna lañ ñeen teg leen si yoon ñu fi fekk ñu def leen ay jëkkër def leen ay borom kër ñoom sey soxna ñu jàppee leen seeni soxna ñii leen mag ñu xam ne ñoo leen mag ñii ñu mag ñoo xam ne ñoom ñoo leen mag te ñu am seen yërmande ginnaaw nag suñu borom moo def li muy def te yow yaay taw te ci yow laa yaakaar pour doxal loolu xale yaa ngi nii ci say loxo tegal ba leen loxo dénk naa la te uuful xale yi loolu daal moo doon sama yitte. incha allah papa. dégg naa kàddu yi. rafet na. ndax ñii di. sama rakk yi mm-hmm. muy Xalil ak Ousin mm-hmm. euh, bu ñu ñëwee ci kër gi dañ ñëw fi ñu war a ñëw ndax wolof mooy wax ni doom baay du noom te bu soobee yàlla dey dinaa leen rakkoo bu baax ñoom tamit ñu xam ne ñi ñuy fekk fii ci kër gi mm-hmm. ñuy ay jigéen di seeni mag ñenn ñi it ñu def leen comme seeni rakk samay rakk it samay soxna yit ngeen jël leen def leen comme ay soxna ñun ñëpp ñu juboo sama papa am jàmm. te defe naa ne fii moom euh, kenn ëppale leen fi daal seen kër bàyyi ngeen ñëwaat. ndax damay wax rek wala xalil ak Ouzin bienvenue <laughs> vraiment yegg si leen ci jàmm ci kër gi. loolu daal lay wax di leen wax bienvenue. dëgg <laughs> euh, déglu naa seen discours yaakaar naa jaruñu ñuy wax bienvenue parce que fi ñu war a ñëw rek lañ ñëwaa ah. donc lenn laa bëgg nga xam ko mooy fii liñ fi fekk rek si loolu lañ leen rejoindre Ouzin eh bul ma dagg de may ma ma àggale donc si yéen la des bu leen bëggee jàmm jàmm ngeen fiy fekk loo leen bëgg loolu ngeen fiy fekk kon pour loolu yaakaar naa buñ indee jàmm rek jàmm am si kër gi ah jarul nekk di taajante. mais yow Ouzin est que yow yaa ngi dégg li ngay wax ah yow sam pap mii li mu daj pour taxawal kër gi pour ay doomam yëpp nekk si jàmm non je pense que waroon nga waxee neneen lu li nga waxe ah. sam papa nga wax de neel suñu papa kër gi suñu kër bay la ñun ñëpp ño fi bokk yam leer na euh, papa ñi ngi jégalu bu baax di leen xamal nak tamit que ni inshallah allah kër gi ci jamm rek lay nekk dinañ mago ñi nga xamanteni ñoo leen mag top seen ginnaw comme suñu grand frère bii ñi nga xamanteni nak ñoo leen mag tamit ngi leen rakko jox leen seen wàccuwaay ñu la xamal ni nag fi ngeen bëgg ñu teg fa suñu bët foofu rek la ñuy xool bu leen am benn benn jaaxle bu soobee yàlla ci ñun kër gi dina am jàmm jërëjëf fii dafa tàng sax xanaa fii amul kilim papa salle bi amul kilim sant alhamdulilah ma ko naa bu baax. fii nag daa ni moo gën a féex. lu sax benn fii moo gën a ay yére. appartement bi moom xat la defoon. fii moom meilleur. waaw oui ma foo jëm suba teel bi. naaj bi tàng na de mais nooy def. ah dans quelques courses yu may doxee rek mais du yàgg. waa dans trente minutes maa ngi retourné waat jàmm. ah yow xam nga ne man ci jàmm rek laay dox sànq ji. ah kon baax na jàmm rek rek rek laay wër. boo ko waxee ma gëm ko. oui ma. Hmm. ma bëgg nga toog mais trente maa ngi retourné waat dama am surprise bu neex boo xam ni pour yow. surprise sa àddina moom tey ngay soog a békk. ah rëq yi 30 minutes gaaw na di. non parce que fi ma jëm moo sori. ah li may dox yàggu. surprise soog a rek xaaroon nañu. surprise yaay sama xarit. ah waaw baax na. jaaxle maa ngi lay baax. muy kii amu fi surprise ah xanaa ma toog rek ku la dégg jox la baabu wax la. ñëw na surprise baa ngi indi naa la sa taw bu góor bi Papa saa ñëw na votre série revient après la pub. Ma aide cosmétique entreprise Bouyes Bangok a ah jigéen ñi ma cosmétique dikna sen seen jaaxle gam molato gàmmolaato bi lakk dëkk bi ba jigéen ko ci gis ma nga tal ba melni touba. Ci ma cosmétique la ko. gam Fatima bi nak pour teint marron yé ko tax a Da fay stabiliser sa teint ba nopi yok sa éclat ou teint ba fo toll di nes nes ana yi pour yaram bu tiéré. Gaw len gaw muy gaw entreprise maa cosmétique da cosmétique dafay yaram bu tiéré. ah bu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 gaamu lèvre rose bo xamante ne deux en la dafa boole gommage ak lèvre rose maa ko wax ci trois jours dong c'est une rose ba nga melni américaine les décorements et de cosmétique yaa ngook dafa bax ba nopi amul ben effet secondaire jigen ni jaaxle jeex fi dal woo ñu ci 77 820 40 40 wala ngeen woo ci 77 811 40 40 plus possibilité de livraison à domicile partout au Sénégal et dans le monde comme ni ma ko waxee sànq dañoo olof li muy wax loolu dëgg olof nee na dal ci ndox lañ ko séntu waaye ci nit lañ ko gën a gën a soxlaa non loolu du benn problème incha allah rabbi loolu du dara. papa. Euh, un instant s'il vous plaît oui. papa waxal ci Nafi Mbaye. waaw waaw xaaral ma Mbaye su ma paree léegi ma ma waaw je te rappelle tout de suite parce que dafa am lu ma wax xale yi. D'accord, d'accord. bisimilah. waaw lu xew. papa dama bëgg nga wax ci Nafi Mbaye parce que Nafi Mbaye man duma moroomam. waaw lu xew te yéen leer nañu. Nafi Mbaye war na dem daara ja di jëli papa Moussa te tàgguwuma. kan. yaa ngi tiit. nga ni. papa yaa gën a dégg li ma la wax Nafi Mbaye war na dem daara ji di jëli papa Moussa te tàgguwuma. alhamdulilah rabbil alamin. papa Moussa ñëw na. yow papa man ma lay wax sama ful da nga naan alhamdulilahi rabbil bi ñëw na jóge nañ ko kay loolu sant yàlla la lan xam nga ko waaye papa ñaar ak ñett xam yow xam nga ki ma ko teg. soxna si gis nga xale bi il n'a pas demandé te li la ci naqari. du man maa ko teg te du sa càmmiñ ñi aussi ñoo la ko teg. loolu ma sa tontu leen dinaa la ko xamal Nafi Mbaye indi na Pape Moussa ci kër gi na fexe ba doon ndeyam mu toppatoo ko dundal ko dundoo ko ndax Pape Moussa bi su ma waxee yaay ci biir kër gi dama koy rey. comme que nangu ko yorul bu yorul ñun ñu yor boo yorul ñun ñu daal dinaa la ko xamal papa sama tur ci biir kër gi yaay moo ko fi dégg yaay daal bi nga dégg ci kër gi. suba dinaa ko rey kii Aliou mooy li ma la waxoon rek jarul benn xabar-xabar yi ànd nag dal rek sunu borom dina defar lépp baax na bu soobee yàlla dinaa la woo liki daal yi wax ne yëpp eh waxoon nga mën naa bàyyi liki bi nag. na mën na xam naa xam naa xam naa. ah ñi ngi koy bañee ñi ngi koy nangu tamit nag daa war a day de. Mm-hmm. bu ñu demee yëmbal nga tudd liki nga tudd Mbaye Ndiaye tamit foo ko teg. tuddee ma Mbaye Ndiaye rek yow tuddee ma Mbaye Ndiaye. léegi yow looy bañ ci liki mbuub. maa ko xam waaye bu loqati sama déedéet ah, waxoon nga ma ko fi. ma ne la daa loqati vie privée bi léegi waxal naa la liki tey la moo tax yow ngay bañ liki mbuub. loolu dama ci wax gis nga loolu loolu du ma ci débat nag duma ci damaa sama noonu traversé dama yóbbu. di ma wax kaa lan la de luy problème bi. xam nga lan mooy kaa bi. waaw mooy. bi ngeen dëkkee fële. Mhm. doo daan ba. doo daan ba waaw. waaw waaw foofu kawe na de. foofu kawe de. booy yéeg sonn booy wàcc sonn. sama sama ñëw bu mujj bi. Mhm. damaa desante ak Ousseyn. ci buntu weeree naa bi. Mhm. Ousseyn nee na yee yaay damay teeg. ni ma boo boo xamoon li ma xam di nga réglé. lu ma xam ne ma xam ne kaa na ma ne kii a xam dama ko xam ma ne ma ne naa ne dégg déglu ko. aussi mhm. naan ma waaw c'est parce que ta maman et papa Nafi Mbaye je ñun xaw ma daal nu mu ko làkkee ci tubaab. ma je papa ah maman Nafi Mbaye. je ta maman je ta papa je ta maman man ah. je ta. xool mooy moom yaayam. ah ta papa Nafi ah, Mbaye mooy yaayam. Ah. ok dëgg la. ak sa papa da ngeen na bok mbay nii la ko làkkee zeta maman et papa. waaw zeta maman et papa. ah loolu du français nag sama xarit bi. nëbb la ko moom français de waxuma français lamay laq de. ah éniyee la ko may làkk waaye yow bu mënta laq français. mbay mosuma la woon nga baye français yi. waxuma français de moom éniyee la ko may làkk. osé déggul indien. jàng nga damay déggul indien. léegi daal osé nee mhm. yaayam. ak sa papa amul na loo leen man daal ba pare nag boole ko osé nga sol talon yu mel talon aussi de comme sa portable doy rek. di ci mën a dox. aussi suñu ñaari maam yee bokk ndey ak baay. waaye àdduna bee xat. ay ak li nga ko wax lépp. ose yi ay sa yaay ma yónni woon tamaate yëg naa yooyu yëpp ba nga ko kojee oh my god yooyu yëpp egg yaa ñaaw la nag te vulgaire ose kër oyee oh zëfa sama maam <laughs> dëgg la. <laughs> kañ nga bokk ak Ousseyn ko waxee sa lu ñaaw yëg ko njaajaan njaay wax ko loo xam ne dégg naa waa robinet ba. Mhm. jaaykatu gerte caaf bu ñëpp taxaw di seetaan. am nañu taxaw ci seen fenêtre yi yow yor seen téléphone. waa léegi gàcce nooy xoolee Ousseyn sama raq la de. waaw fii àdduna la rek àdduna moom xuloo moom mbalit la rek. xuloo moom lan la xëpp. xuloo moom mbalit la rek. num la xëpp Ousseyn. mom ci xuloo am na lu ma waxoon de wax na ma ay banana waye comme fatali ko rek jappali waxam ñaawul waye sa wax yang koy fatali ko léegi kon wax nga ko lu ñaaw bref nañ jall ci leneen li problème bi fo newoon fan yi wa problème waaw xam li problème wa moy na guerre mais sax moy njaar te nak gis nga na fi man damay faral di guerre mo ci guerre guerre anti la guerre comme ko oser na ñoo bokk tere gi da fi am liberté ak kan man ak yow mi ak osé ñoy def coalition ànd sëy la osé. oui ma da ngay reculer def deux pas. ma wax ak yow taxaw fa nag xuus ci yow. man. maa bàyyi. lu jëm ci wàllum guerre. ay xeex xulloo. vocal di dem vocal di ñëw jonga maa jokkar leen. Hmm. arrêté naa. loolu mënul la. loolu mën na mën a suñu li xam nga nag xam nga nag maa ngi yow xam naa ni ren lañ nar a ko ci àddina ñu nag ci xarit yi doon ànd ànd at yu yàgg bàyyante ne parce que yow bu ñu demee ba yaay osé bala moo xam ne man mbokkam laa mu tiim mën naa ma caga deux cent. waaw caga deux cent. waaye dégg naa la dégg naa mu ne la nga mel ni kañ. waaye waaye maa ko wax. loo ko wax <laughs> moom la mu wax rek lañ dégg. yaay osé yaay osé dama ko téye benn ku yor ku yor bëri ko diw tiir. waxoo ma ko de. yaay ni taatu duus nga naan ci digg ci saal ba man xam nga ne man ko ma màtt fii ba du ma nooy looy bàyyi ko ñëpp toog màtt la fii ba sa dégg-dégg bi dem lan doo sangu. mu ne ma doo ma ne ko teew paa. Ah, waa léegi xam nga yooyu yëpp nag dafa metti waaw kaay ma wax la leen nag mbay bu ñu ànd dañuy yeddante ñun li ñu doon dund noonu lañ tegul fenn ku ñu xamal jàpp la en otage. dund bu neex boobu. déedéet. jox ci cadre jeeg ji taxaw naa bàyyi naa ñoom nañuy màttante na kenn ku nekk di buddi sa xefu moroom nii di lekk sama yoon nekkutu ci. Hmm. mbay bi ma ñibbi si waatee ci kër gi ba léegi. Hmm. gisuma la foo ne woon. maa ngi mbaaw maa ngi mbaaw moom fooyee mbaaw. sekki sekki nee ngi mbaaw. mengi maa nga mbaaw di jàng métier nag jaamu yàlla rek. jàng métier jaamu yàlla. nan la looy jàng ah, mbay yaa ngi nax sa bopp mbay yaa ngi tëralee sa bopp ay kii de. yow mi béy jaww kaw ak suuf fa fa jàngee léegi. waaw jàng mi béy jaww xëy dafa la xaar. kaw ak suuf. kaw ak suuf sama kii dafa béy jaww. parce que yow yow gis naa yow yow bàyyi bàyyi bu ñu toogee fii nga def ni fii képp dina dégg naan ay da ngaa béy jaww su ma génnee xale bi ma ko xool. déedéet yow mais dama xam ne yow jàng mi ci wees na ci yow. waaw jàng mi gis nga fanweeri at nga am ko. waaw waaw léegi waaye dégg ma xool. yow rab yee la màgguloowul rek de waaye am nga fanweeri at. léegi nag rab bi ñoom woo ba mu ñëw ñu ne ma bàyyi saag bi nga dem mbaaw ca rond point mbaaw ba nga jàng métier te nag li ci gën a neex mooy métier téer laay jàng fi ne nii sa bàmb moo naat yow. yàlla bu ma la ay robu naa ñëwal Taïbas kooku kan la ay robu Taïba ay bu boobaa ma génne sirène la. ma buñ fukki. damaa bëgg organiser waat Miss. ma defal affaire bi ngay dox ñu naan. Miss ñoo taal est-ce que doo woo est-ce que doo mais bu Ouzin taxawee nii nga taxawee gi ngeen jiit la yéen ñaar waaye bi di daw fii ngay def fii ma wane sama loxo wane sama wane ni ma mën. jëlal mayaatu jeeg la. mayaatu mel ni xaaju guro mayaatu mel ni góor maa ko jël sama xanaa moom. bu laaka bi kooku. maya. waaye ma carax ko kenn moom. sa xarit la woon nag de. wóor nga wax. mais jubal ak moom rek nag àdduna amul solo. ma yaatu ñàkk na kes ñàkk teggi ma yaatu ma yaatu man ak moom ci bi mu jógee marché yomb si ko bële ji ma li ma wax ma yaatu ma yàq loxo daf ma koo yàq rek taw soo. yow jot nga fee dajeeg ma yaatu. Hmm. waaw waaye Nafi. Mhm. am na leneen war a wax nag. lu demee nag. sa père. sama waaw. waaw na ma de. ba sama papa jot naa ci moom ay laaya de. yow jot na ci ñëpp. kii la sàkk sa jot nga ci moom. sa papa war naa toog ba dernier moment dernier moment muy ne ay paane ay doomam dugg la ci kër gi kër gi gën a xam naa def loolu. ba pare ne sa papa boole ko am fit am fit goo xamante ne si nii buy wax mel ni yëkkatu guro. may ñaay. lu bàyyi loolu. gis nga tëgg goo gis. day am kokk kokk waaye day am dàng-dàng. Hmm. naa la lépp autorisé la ñëpp autorisé la man sax sama bop nga yàq ma nag lu la neex. Hmm. waaye sam papa. Hmm. Ah nag da ngay taxaw. <laughs> bàyyi nga wax de. waxoo jeeg bi fii say waxoo mag yu góor. waxoo ayaa. bàyyi nga wax. sam papa. Mm-hmm. su ko nee xanam téeméeri doom. Mm-hmm. eh bu leen indee ci kër gi. Mm-hmm. dañ leen di uuf segam jàmbur la ñu fat eh bu mbokk ñëwee nag war naa mën a toog ba nga suñu ànd continuer mm. teg gir sa loxo ci sam papa bu ko jéem a wut loo ko xamal. jéem ba jéem waaye dama ne dama ne sa papa bu ma leen ni picc ramut fu mu tàgg am fa doom dañ koy wax. Mm. waaw sa xam nga loolu problème te nag bu ma xam nga lan moo fi am. waaw xamalante. waaw ñun gis nañ koo xam hmm. débiteri ba. jaaykatu këriñ ba. waaw jaaykatu boutique ba. may ga ba. bàyyi ko te ñoo ngi sàng sutura seen yaay yi. Ah, léegi xam nga laa bëgg xam ko taala télé bi ñuy ruuma laa wax ci suuf da ngaa bëgg mu ñaaw. <laughs> boo ma tuddee débiteri ba nag kaa ci naan fa tudd porte super ba. Kan kooku kan la. kooku kan la. woy. may dama ne. ma ko yii de bett sama bopp bi. yow tàllalal gàddal kay ba wax léegi sigal ma <laughs> kay daal ma léegi bi lay daal ma waaw daal <laughs> may duur damay duur xamaloo sa papa daal <laughs> Mama Aïda cosmétique moo leen doon may seen série awo bi